ndigalu président de la république monsieur le président Macky Sall euh, ci yónni bi nga xam ne ni madame le ministre euh, Aminata Assome Diatta ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises bi mu ñu def pour yabal ñu fii ñu ñëw fii marché Ocass ci Touba euh, pour ñëw taxaw bokk ak yéen naqar bokk ak tiis bokk yen li nga xam ne ni moom la ñu gis fii nii ci marché Ocass muy lakk bu metti bi nga xam ne ni moom moo fi am démb euh, tey ministre du commerce dafa waxoon ni daf fi ñëw teew fi mais comme ñëpp xam nañ ko mercredi jour conseil des ministres la mu yabal ma man ak délégation ministère bi yëpp ne ñu jóg leen ngeen dem ngeen fekki sunu mbokk commerçant yi nga xam ne ni ñoo nekk Touba ngeen dem saafonteeg ñoom bokk ak yéen naqar bi ba pare toog déglu leen waxtaan ak ñoom li nga xam ne ni gouvernement bi moom la jàpp pour ñëw taxaw wax leen ko ci genre situation bu métti bi ñu nekkee di dëkk donc euh, ñu ñëw taxaw fii fekk fii sunu mbokku délégué marché bi fekk fi sunu mbokku association des commerçants et importateurs du Sénégal ACIS pour wan leen ni que ñun tamit ci biir lañu bokk parce que li leen dal ni ñun ñëpp ci leen dal ku ci nekk am nga ci sa rak ku ci nekk am nga ci sa mag am nga ci sa mbokk ku la jege ku la sori donc ñun ci suñu bopp ñun ministère du commerce ñun ñoo njëkk sentir lakk bi ni ñun la njëkk a parce que infrastructure commerciale bi nga xam ne ni mooy marché Ocass dafa bokk ci li nga xam ne ni ñun ci la ñuy encadré su lu ci ëpp ci suñuy mission ci kaw loolu mooy wax ni que euh, lii dafa tax ñun département ministère du commerce ñu gën a mën a taxaw pour dem ci li nga xamante ni moo doon suñu objectif principal mooy ñu réorganiser marché yi mooy ñu moderniser marché yi ci kaw programme bi nga xam ne ni programme de modernisation des marchés moom la ñu teg fii programme boobu dafa jël li nga xam ne ni préoccupation bi ñu am ni tey ci lakk bi dafa nekk ci programme boobu maanaam mooy lan mooy moderniser marché yi ba pare sécuriser leen ci kaw loolu ñu ne dañuy defar marché centraux yi nekk ci ci ci ci ville yi dañ leen di njëkk defar li nga xam ne ni moo am fii Diourbel mooy nga xam ne ni marché central bi mooy marché central bu Ndumbe Diop. programme bi foofu la njëkk commencé commencé nañ ko exécuter te def nañ fa pratiquement euh, enveloppe bu 300 millions ñun ak waa AGETIP ñu ngi ciy liggéey pour que euh, marché boobu ñu mën ko réhabiliter. fii ci Touba dañu prévoir def fi benn marché interrégional marché régional boobu dañu am ñaari ñaari bërëb yuñ ko war a mën a def. ñu ne euh, rappelle-moi le nom. Ngiraan daal. ou bien euh, fii ci oh, marché ocas loolu euh, décision bi pour wax fan lañ koy def daf dañ ci nekk ci liggéey ñun ak kilifa dëkk bi muy Serigne Touba ak ànd ak ak sunu naatango yi nekk AGETIP. bés bu ñu paree ba am décision ba nga xam ne ne autorité religieuse bi joxe na ko fii projet bi foofu lañu koy foofu lañ koy def. mais lu weesu loolu mooy que ni fii li ñu gis fii dafa laaj aussi ñu sécuriser waat marché bi dafa laaj aussi ñu au moins dans le dans le court terme li ñu koy waxee noonu ci ci ci ci teel teel bi ni ñu boole ko au moins ci modernisation ak sécurisation bi nga xam ne ni commencé nañ ko def ci marché centre yi. loolu mooy li nga xam ne ni moom lañ leen bëggoon andil tey. pour ñëwaat encore réitérer leen waxaat leen ni ñun dañu ñëw bokk ak yéen naqar bi parce que ñun ministère du commerce ñun ñooy njëkk am impact boobu. tey dañoo toog fii tey pour xool naka la ñuy jàppal jàppale suñu ndaw yi suñu doom yi suñu frères yi suñu sœurs yi ñu mën a toog fii Sénégal pour liggéey donc lii bu ñëwee dal suñu kaw dañu war def suñu kéemtalaay kattan pour ñëw bokk ak yéen naqar bi d'abord mais ensuite accompagner leen ci naka la ñuy def pour gaaw a génn ci lii pour mën a continuer delluwaat suñu liggéey